asalaamaaleykum wa rahmatullah waa IEF Thiès département waa Kër Moussa Diender ak li ko wër jàpp leen xibaar bii yéenay boroom école franco arabe El Hadji Malick ci njiitul directeur oustaz Bàcci yàdd ak mboolem personnel bi mu àndal ñoo dellu si ak mbégte mu yaa di leen yëgal di leen woo ci seen feetu fen dane bi ñu baaxoo amal at mu jot ren ñu jàpp ko samedi di yemoo ak le 13 juillet ñu di ko amalee ceeb kër Mousso à partir de 15h ba tax ñuy soññ mbooleem mbokk yi rawatina parent d'élèves yi ngir ñu teel a génn 15h fekk fa ñëpp ngir ñu mën a gañe waxtu wi balaa timis di jot programme bi lépp mën a yemb ba ñu yiwi mbooloo mi. école franco arabe El Hadji si nag mooy école franco arabe numéro 1 ci IEF bu Thiès département ñu sanc ko depuis 2001. ki ko jiite di ba ci yàdd waaye mu ànd ak personnel bu am solo buy taxawu njàngaleem français mi ak njàngaleem arabe bi muy école bu ràññeeku loolu ci diwaanu Pout Kër Moussa Jandeer ak li ko wër ñu am ay programme yu am solo waaye bi ci gën a ràññeeku nag di franco arabe waaye itam am nañu jardin d'enfants ba seconde at mii di ñëw nag ñu fas yéene cee am classe su première secondaire waaye itam am nañu programme bu ñu duppee franco islamique ngir gone yi nga xam ni dañu doon jàng français te jotuñu woon a jàng alxuraan jotuñu woon a jàng seen diine bu ñu ñëwee ñu jàngal leen lu ñuy sàmme seen diine waaye itam ñu seen njàngum français am nañu internat boo xam ni dinañu ci jàngal gone yi alxuraan français ak arabe programme yu am solo yu wuute yii nag moo waral depuis 2008 ak léegi école franco arabe El Hadji Malick ràññeeku lool waaye di amal ay résultats yu mucc ayib samedi 13 juillet nag ñu fa yéene amal seen feetu fin ñu di ci invité IEF bu Thiès département ak mbooleem directeur yi nekk ci CODEC bu Kër Moussa waaye ñu di ci ànd ak Baye Talla Ndiaye di notable ca Kër Moussa ak oustaz Ousmane Gueye di imam ca Kër Moussa ak mbooleem kilifa yëpp bi nag dañu koo dara jaale professeur yi nga xam ni ñooy jàppale lycée bi waaye itam ñu fas yéene cee primé élèves yi nga xam ni ñoo gën a ràññeeku ci at mi kon nag bés baa ngi noonu samedi lay doon di yemoo ak le 13 juillet ci Kër Mousso à partir de 15 heures ñu di ko yëgal ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu wuñu fenn